alors yow Oustaz xam nga ni nag dafa am benn casquette boo xam ne moom la Sénégal yi di solal Oustaz yi bis bi macha allah Sénégal yi bokkoo ko ak yow soxna si dem salon loolu tamit xëy na polémique la boo xam ni <laughs> bëggoo ma ñëw ci mais pour leeral rek ñëpp ñu ngi naan ah soxna si Oustaz kon day dem salon def nangam ak nangam c'est vrai que du ñàkk am na loo ñu ci mën a wax ci li nga xam ne ñu bari ci askan wi équation la pour ñoom soxna si dem na salon wak ñëw na géwél yi topp koog yu demee noonu te xaaruñ ko woon ci yow dinañ waxtaan ak moom mu muuru incha allah hmm. mais sénégalais yi di wax ni soxna si oustaz warul woon a def lii oustaz warul woon a def lii warul dem salon ak yooyu. du seen jabar sama jabar la. Hmm. c'est ma femme. amuñu droit commentaire ci intéressé wu leen. Hmm. xoolal c'est ma femme. d'accord nan ci neutre. Hmm. lijjantiw ma ñoom seeni jabar dem na salon wala demul salon. sama jabar di dem salon. taxul dem salon dagan daganalu ma dem salon mhm. dégg nga wax bi mhm. mi ngi ci di dem salon mhm. nañ ko ñaanal yàlla mu dem ba mu yàgg mu muuru di def comme ni ñëpp di def mais comme man lijjantiwu ma seen i jabar ak seen i doom ak seen i yi ñu dëkkal ndax ñi ngi dem salon wala demuñu salon nañ maandu ci sama jabar d'accord seen yun nekku ci seen ŋaññi nekku ci alors mais yow Oustaz bëgg naa xam c'est vrai que dañuy gis yow benn motivation bu graw danga am engagement trop engagement ci euh, ci di défendre sa bopp mais aussi di wane liberté bi nit ki war a dundee motivation bi nga am lan moo la vraiment moo la moo la may motivation boobu je veux gis nga Alioune Cissé. Mm. muy coach équipe nationale. Mm. bu toogee di seetaan match bi day xool fan moo am faay. Sénégal boo fi bëggee dund da ngay toog mel ni match nga jàngat ko. man bi ma liiree réew mi. xam ni bari nañu dem bàmmeele ñoom ñoo la rey ba pare wëlbati ko di la estatiwaat man ci laa noppalu xam ni kenn du ma rey di dund segam yàlla reyu ma nit duma ma rey xam nga nit ñi lu ñu lay reyee mm. ay wax ju bon ay commentaire ay sos ay fen yu dul dëgg nga dégg ko bëgg a stressé wu mu tere laa lekk tere laa naan nga koy xalaat di jeex yow booy jeex doo yëg ni yaa ngi jeex mais nit ñi ñoo naan la yaa ngi jeex fekk am na problème yooyu doxee ci sa bopp bi bi ma ko teelee nand ci laa kàccatiku nag ci waxu commentaire yeeg waxu nit ñi. man amul wax juma yëngal lu toll ni virgule man congaan boo demee ci groupe Facebook yi ci internet bi yëpp duñ xëy waxuñu ci man. man la buñ naanee ataaya maay seen njar man la ñuy njaroo. Mm. ci man la ñuy njaroo di débat di commentaire mi ngi def lii dem na fii kii lay génnal kii la nekkal mi ngi nàngam bis biñ ko waxee laa gën a biddanti 16 heures laa yeewu bis biñ ngi commentaire man dara fere géew ci àddina liberté totale laa am mhm. lenn li nit ñi di wax yow Oustaz nga baal ma sa jot bariwul am na ñaari point yu ma bëgg ñu waxtaan ci nit ñi dañu ni vraiment ce discours à chaque fois dañ ko buñ koy dégg dañuy jàpp ni Oustaz Modou Fall dafa am ñu muy gaaruwaale <laughs> ñu bari loolu la wax ah ok uh-huh. gaaruwaale ma kenn man daal ku ma amal jàmm. Mhm. ñu am jàmm ku ma séqal jàmm ñu nekk ci jàmm buñ séqul jàmm séquñu ko. bërki démb dama toog ci benn restaurant benn waay boo xam ni. Mhm. mi ngi ci télé bi di expliquer di wax man neexuma te toog na di wax ci man boobu ba léegi ma koy rëbb mënuma koo gis. Mhm. far yàlla keroog mu fekk ma ci benn restaurant gaa yi jóg di ko nuyu ma toog fi ma toog mu nuyu ma ma ni ko téyel sa loxo. su ma ko nuyu woon nekk naa féq hmm. parce que man mënuma gëmloo nit ñi ni safoo ma neexoo ma ma nekk ci gaamu geer ak yow nga fekk ma fi ma toog may naa féq di la akolaat di la nuyu di wane lu amul di wane lu amul duma hmm. ko def man du hmm. ma hypocrite du ma fen du wane lu nekkul ci man mu ne ma jab bu ma ne ko téyal sa loxo parce que loolu laa ko guuxaloon doon ko wër man bu ma la guuxalee bu dee vingt ans it du yàkkamtiwu ma d'accord Mhm. dinañ daje tànk tànk ci suuf jaan ci suuf yàgg yàgg daje. absolument. Mhm. keroog dafa ruus nit ñi naa ma oustaz nangam ak nangam ak nangam man leen man du ma tricher. adduna bii man ne foo ma yem laa lay yem boo ma ne mbaa xam nga ni boo ma doon nuyu boo ma nee ça va man la ça va nga àgg ci bien ma àgg ci bien. boo ñëwee nuyu mu nuyu ma man congaan li may dundee man xoolal. Mhm. su ma ñëwoon tey miin la yow. miinu ma sa ñaari gaa yi yow laay waxal. su ma paree dem sama yoon benn nit ku ma miinul su ma raxee kenn dootul dégg sama baat. laaj laajal ñi may fréquenté bu ma ñëwee sa kër tey fekk gan gu ñëw seet si la man mm-hmm. miinuma gan gi mm-hmm. ba keroog gan gi di ñibbi du ma wax damay moytu sama kéemtalaayal kàttan ci mm-hmm. réew mii parce que ñi ma jonkonu ak ñi bëgg a wane samay preuve ak daa bari vidéo dung oustaz Modou Fall ku ko amoon ci réew mii <laughs> yaa <laughs> oustaz loolu mois ngay fayeeku loo xam ni boo boo ca jógee ay immeuble ngay tabax c'est sama ojo la gaa yi bëgg a dégg mm. sama vidéo sama dung samay waxi dof mm. kot laa ci def du ma wax. d'accord daq dàq moytu Ismaïla Yaasin. yenn saa nga dégg ku naan waaw oustaz damaa dégg ay xale jigéen yoo xam ni dafa mel ni dañ leen a fay. pour ñu piéger la kàmbal la man ni leen nan ñëw ku may kàmbal doo ma am fa may féexloo xale du fa doxantu. Mm-hmm. wax naa leen ko maintes reprises fois man du mag xale yi vingt ans vingt cinq yi nga xam ne bu ñuy tiit di wax <coughs> du mag ñoom. kuñ mottalikoo lañ bëgg maay wax ak diw déglul audio bi. Mm-hmm. diw laay génneel daf ma am fen lañ mën. man damay yee chaque jour nit ñi. Mm-hmm. congaan kuy yeewu ak kuy moytu la ko dàq. képp kuy insisté di la woo di la woo tegale appel jigéen bul wuyu. dafa am ñum toogal bëgg laa def may libre. Ndiakhou Sass fan si yaa ngi jooy de man chaque jour nit woo ma ni ma dimbali ma ngir yàlla ma dégg ko. dama ko gis nga congaan ki lay kiy insister pour jot la. bis ah. boo bàyyee une heure de temps après deux de temps nga woo ko fekk jóge na ca jotaay ba mu nekkoon. Hmm. soo ko woowee ni ko loo may doy danaa dara sama xel a nekkoon ci yow rek. doyewu dara. dalaa bëggoon a piéger. Hmm. wax naa ko góor ñi ma ni leen. bàyyi leen nekk ak xale yu jigéen yi ci chambre yi. di leen njëkk a jug ci kaw lal bi. maanaam. jigéen ñi boo nekkee ñoom congaan ba njëkk leen a jug wan leen gannaaw di dugg ci salle de bain bi dañ lay filmer sa dungu yëpp ne ci biti. kon tollu nañ foofu yow sas ki nga wan gannaaw di jëm ci salle bi. yow sas loolu ñu ko comprendre bariwul de. man damay joxe ay leçon pour ñu moytu. ki nga wan gannaaw di dem ci salle bi mu yóotu téléphone am nii. <laughs> yow gisoo sa ginnaaw mi ngi lay filmer. absolument bàyyi leen nekk ak jigéen naan ko bësal ma sama digg ginnaaw geeg yooyu day toog sa bu jigéen bu xasee toog ci sa ci toog ci sa kaw congaan jël téléphone di jël sa ndong li ndongu congaan ñëpp a ko xàmmee <laughs> imagine lu leer la muy jël sa ndong li di jël di film pare wane ko ne ndongu di sa hmm. ndong kan moo koy weddi c'est clair hmm. gis hmm. yooyu yëpp ay pièces la yu ñu lay defal seen appartement yi caméra baa ngi fii ci kaw làmp bi carte mémoire bu ndaw lay am soo fa duggee bu ñu la filma bu ñu lay filma doo ko yëg dem naa Dubaay ñu wan ma big boo xam ne nii nga koy keppee boo paree mémoire bi ngay rocc ci lépp luy film. Hmm. seen verre yi day am ay caméra appartement yi noonu. jamono bu tollee foofu doo moytu. vigilance dafa laaj vigilance. Hmm. parce que nit mën nga bañ ko la sosal mais preuve bul nanga ko ko génnee. absolument mën nañ lay sosal nag mais bañal preuve bi. jamono bu tollee foofu moytu day jaadu xam ñi ngay waxal. Hmm. ku la woo téléphone di insister bu ko jël. sooy wax ak nit jékki-jékki dégg muy def écho. mais libre la la def ku jékki-jékki woo la siqoo ak moom siqoo leen ay kaf mu jekki jékki waa sama càmm yow yaa ma mën a bàyyee nii ah xale bu góor bi jël nga sa yoonu bopp de dawal génn day fen am na ñum toogal yow nga ne leçon laa war a ubbi école di jàngal kilifa yi ne ci réew mi nu ñuy dundee ci réew mi. Mm. c'est vrai que expérience la yaa oustaz li nga bari dinañ ko mais xale yi 25 ans yi mm. ñoo leen di. payé xale yi bu ñuy kontaan di wax. Mm-hmm. bu ñuy tiit di wax da nga ciy séq ak xale bu ndaw. Mhm. nekk kilifa matadi matadi gu doy ni wàccee sa bopp bay séq ak ñoom ci koo xam ne yow exemple nga. war a moytu sa kéemtalaayal kàttan parce que am na étiquette boo xam ne bu ñu la ko xasee takkal. kenn mhm. waru laa dégg ci yenn yi. àdduna nag ku jub amu fi ku yàlla dimbalee am. mais kudul yonent bi di nga juum di nga mhm. def bàkkaar nit ak bàkkaar ñoo ànd. mais sénégalais yi comprendre loolu ci sa mm-hmm. njuumte li ñuy profitoo yàq la mm-hmm. ba dootoo jar dara ci réew mi mm-hmm. réew mi mel noonu nag boo fa nekkee da ngay xam sa bopp maa ko koy wax benn kilifa ma ni ko boo mënta bañ a mooy yàlla te munoo bañ a mooy yàlla te àgg na la foofu bàyyi fi waa képp ku naan noo def mbaa yaa ci jàmm romb ko kuy làkk olof <laughs> kuy lekk ceebu jën romb romb ko fi jàll yow Oustaz mbaa jigéen ñi duñ ne di yaa Oustaz da ñu xeeb ak yooyu noonu. non mais jigéen ñi tamit man man man aram si aram si sa soppe borom prêt à porter bi aram maa ngi lay nuyu borom tëngëj nee na daal bëgg na xam yaa Oustaz lan moo tax ngay géer ak jigéen ñi daal. non non loolu loo leen di clash. géeru ma ak ñoom. jamono yàqu damaa dem Sonatel ne leen defal leen ma ci sama numéro téléphone loo xam ni. Mm. numéro bu ma ci enregistré wul du dugg. fi mu boo ma doon woo. Mm. ku amul sama numéro boo may woo dugg appel du dugg doo du jàll. Mm-hmm. xam nga lu ma ci jublu. Mm-hmm. xam ñi may waxal xam ñi may fréquenté nettalikat yi ñoo fi bari ñi nga xam ni seen biir yi moo raw APS Ila Touba fër lay def du garde secret fër ni oto yi di rombantee ci péage bi duñ garde secret yenn saa yi nga gis ku mën a fen ku garde secret lundi ak mardi mais mercredi biir bee xoos naan ko ay yow wax ma sonn naa dimbali ma ngir yàlla mu jekki jekki rek jël téléphone am yónnee message xaritam bi waa jànq ñëw fi am naa kaa ay jànq ki ma am démb jànq ko am Oustaz Modou Fall mi ci télé bi bàyyi ma moo Marrakech yu zone la fii indi. Uh-huh. jotuma ko koo filmé mais <laughs> Marrakech baa ngi nii. comme dañoo mën a nettali mën a mbëbboo nit. koo ci siqal mu wëlbati ko di fen fu ne ni da ngay génn ak moom moo tax li ma wax sama benn xarit bu yebu léegi. Mm. nañuy doxaan doxaanu force track bu fekkee dañoo bëgg a takk. maanaam mooy jël la lëndi lëndi ñu takk la. <laughs> force track boo siiwee. Euh. képp koy bëgg na la leer ni fast track boo ko doxul ak moom di nga am problème. Mm-hmm. comme jamono yi moytu la ñu toll nag congaan uh-huh. di moytu suñu kéemtalaayil kàttan. di ñaan yàlla mu suturaal. très bien Babacar Niang sama frère maa ngi lay nuyu depuis Paris nee dafa seetlu ne nag léegi. yow ak Pape Cheikh am na ko ci yàq moroomam donc dafa lay suivre bu baax a baax sa soppe la <laughs> nee na yow ak Pape daal am na ko ci yàq moroom lan nga koy ton ci loolu. pour mu avancer Babacar kooku ah. moo mën a mm-hmm. moo mën a tooñ.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 96 96. àndala buri mooy saafara sa yaram.